sport en général yan genre sportif ñuy ñëw ci yow mbaru làmb judoka karatéka footballeur parce que damay bañ a feeñal yan genre sportif waaw man nag làmb man maa ko xaw a daw li tax ma daw ko mooy euh, xam-xam biñ ci am buñ koy liggéey dañu rey bakkan moo tax dañuy rey waaw dañuy rey bakkan buñ koy liggéey dañuy rey bakkan mooy dañuy def xaatim yi ñuy def ba pare takkal ko ganaar mën nga tek ni ganaar gi ñu toog fi ñu toog di wérd lañuy ñuy lañuy la ñuy wérd balaa ñuy pare ganaar gi dafay dee te bu dee day dee nekk met yi duñu gënal ñun dañu gënal mooy sarax bu ñu def rek nañ ko def bu ñu paree jël ko saraxe ko nit ñi jëriñoo ko. sa ganaar gi. rawxaan bi nga xam ne moo la a liggéeyal ba téye ki nga xam ne mooy daje ki nga bëgg mu gañe waaw rawxaan boobu mooy soxla bakkanam moo koy rey. ci yow genre xam-xam bi ngay utiliser. waaw xam-xam moo koy soxla. def nañ ko nag mais bàyyi nañ ko def nañ ko mais bàyyi nañ ko am na it am na yoon boo xam ne am na ci mbër boo xam ne. ci làmb ji waaw waaw. tey tey fan la ñu ci VIP waxuñu nag nga jaar ci tur. waaw duñ tudd tur. am na benn mbër boo xam ne Sénégal dafa waroon bëre ak benn mbër bu mag jour boobu ki doon bëre mooy roi des arènes ki war a bëre moom moo war a jël roi des arènes mu ñëw wax ñu soxlaam ñu defal ko liñ koy defal ba pare guddi jot ñu tëdd ñu ne ñu dem leen ci suratu Yaasin nga demee ci suratu Yaasin ngeen xool ñaata miim la am ñu xool ko ci guddi gi ci gént gi ñu xam ñaata miim la. mu tollook benn ci turu yàlla yi nga xam ne mooy asmaul alxusna ci 99 attribut yàlla am ci alquran ñu ne ñu jëlal yaasin miim yooyu nga liggéey ci nangam ak nangam ak nangam nga jël turu diw def nii jël turu diw def nii nga toog nga wér ak nangam ak nangam bu xëyee képp koo ko musa defalati fekk mu ngi bëre soo ko defalee dana daan. waaw loolu <laughs> yàlla moo xam. yàlla rek moo xam. parce mm-hmm. wa wallaay li may wax dëgg la ba bañ bañ defee loolu bañ defee loolu yàlla dogal mbër boobu pour la première fois mu nekk roi des arènes ba mu waree bëriwaat ñëwaatul nag waxuma nag parce que man nee naa leen defatuma loolu ci àddina bëri moom laalatuma ko ba mu waree bëriwaat ñëwaatul waaye dafa daanu nag dafa daanu du ma nag parce ñooñu d'habitude bu ñuy ñaanlu. du ci ñun la ñu ñëw directement daa fu ñuy jaar ñu ñuy jaar ñoo ñëw ci ñun voilà ñoom duñ xam ne sax liggéey nañ ñoom duñ xam ne sax liggéey nañ ko mais kooku ñun ñun yëg nañ ne billaah yëg nañ ne roi des arènes am ci ñun la ko yàlla jaarale xam nañ ko mais nag loolu du lu ñuy wax yéen ma ko laaj. non làmb dafa nekk dafa nekk compétition bu xaw a xaw a kiiwa charia tuuti rek moo tax li ci nekk yëpp dafa xaw dafa xaw a yéeme léeg day xaw a laal taw xeetu nit. ñëw sëñ dama bëgg bi yow ci alxuraan ngay liggéey ba tax nag nga ne du ñaanal mbëru làmb kon doone du ma ñaanal mbëru làmb kon alxuraan nanguwul ku ñaanal parce que liñ ciy def na yu bon yi ci am nañ ci yegg. non am na am na am na ñuy ñaanal mbëru làmb te duñ ci am benn bàkkaar mais ñun ñoo préféré loolu et puis làmb itam dafa bëri ay retour dafa bëri coono te lañ ciy daj duñ la ko fay. mooy lan waaw parce que mbër yi dañ am galaaj nag dëgg-dëgg. gis nga nag euh, am xam-xam du tax nga ñàkk nangul keneen lim xam de man dama nangul gars yi seen xam-xam de et puis <laughs> yàlla maye na de boo jàppee ne yow rek la yàlla may yaa ngi nax sa bopp de moo tax taxaw man rek xam loolu kenn du ko def nit du ko def da ngay romb nit ak sagaram sax nga yaakaar ne moom xamul dara nga def li ngay def mu këpp sa kaw donc loolu moom moom beneen affaire la. wala faat bakkan yi nga ciy daw. dañuy ñun dañuy daw faat bakkan bi. mais itam retour yi dawuñu ko parce que li muy moyen bu ko defee benn problème mais la muy laaj du la ko fay. te yow doo ko jël di ko defal sax. dañ ko ma mokk ci kaw suuf. déedéet mbër mbër mës na ñëw ci yow ah nga ne ko man de gis naa victoire bi waaye diw de day ñàkk bakkanam. déedéet nga bàyyi wala musul. musul am xamul tax musul am. Mm. nee naa la mbër yi duñ ñëw ci man mbër yi ci ñi ñi dem ñoo ñëw ci man. intermédiaire yi. Mm-hmm. ñi mbër yi ci ñi ñi dem ñoo ñëw ci man lu ci bëri nit ñi fa ñuy dem ñooñu ñoo ñëw ci man. sëñ bi xam-xam bi la yàlla may tey boo gisee ci mbër yi ni ñu mel boo ñu doon xaymaa mbër mu ci waaw xam ko. du ma la wax mën na ko xam ko de mais ñii de moom am nañ gàllaaj. Hmm. Eumeu seen am na gàllaaj. Eumeu Sène am na gàllaaj toog Eumeu Sène am na parce que Eumeu Sène du man mais am na xarit boo xam ne yàlla def ko may. parce que man am na ñu bëri ñoo xam ne wër nañ ma samay xarit lañ dañuy bokk di gëstu ci xam-xam moom moo mos wax mu ne ma ama mbër diw ma ko ah ma mbër diw du ko musa daan ma ne ko lu tax mu ne ma dañ ma won ci fam ko denc ci salañ ba mu ko denc billaahi wallahi talaay ko wax ma nga Canada. mbër diw ko wax. mu ma mbër diw du ko musa daan. waaye mbër diw boobu mu ne mbër diw du ko ma ne ko lu tax mbër ko musa musa ma ne ko mu ma parce que daf ko denc ci salañ soo xam ne du ko musa daan ba muy bëreeg mbër boobu ñaareelu yoon ba am na benn waay bu jaay dibiteri fële fo ba mu ko ko nettalee ba pare waaja ji daf ko ne su fekkente li nga wax am na sa waa kër yëpp maa leen di jox reer di bi effectivement keroog mbër yu boobu Eumeu Sène daf ko daan waaja la mu waxoon ni dafa jël dibi bi yónnee ko kër sama xarit bi waaw ca lañ reer keroog. parce que fa mu ko làq moo ko am kooku am na galaaj. waaw ak kan. am na galaaj. Mhm. Euh, Bombardier Mbour am na galaaj. Mhm. Modou am na galaaj waaw ah, mais nag ñi ma njëkk ñett ñi ma njëkk hmm. am nañ gàllaaj de. mooy Eumeu Sène. Hmm. Hmm. Ah, am na gàllaaj nak mais ñett ñi ma liggéey ñett ñi ma njëkk lim yaakaaruma kenn. bu dee gàllaaj la ko ëpp Balla ah, yaakaar naa de. yaakaar yaakaar naa ko de yaakaar naa ko de yaakaar naa ko de sama yaakaar nag mën na bañ a dëggu waaye yaakaar naa ko de. Mm-hmm. wax nga ci làmb moom. Mm-hmm. kon seen mbëru làmb yi mun ngeen a toog. te xam ne sëñ bi du leen ñaan. Mm-hmm. loolu moom leer